palamarin bi déwénati bal ñaax bal nañ la yàlla njaala boole jégal teewe ko déwén ñu bari bari yàlla dolli xéwal yi mais ñu sutura àdduna ak alaaxira li nga bëgg yàlla na ko yàlla defal ci barke bés bu tedd bi vraiment kontaan na waaw sama xool sedd na suma xarit nga defal nga ma lu ne yóbbu nga ma fu ne yàlla na yàlla yokk sutura jaajëf kontaan naa ci kanam incha allah ma yëkkal nga ba ci kanam wallaay allahumma amin allahumma